dog bi dañ koy tudde faslu buy waxil ajaal moom nag yoonu Malik ñoo koy ëpp jàngle waaye fi mu ne yoonu alimaamu Shaafi sax amu ko ndax yoonu Malik moom day sàmmoonteeg sakk mboolem bunt yi nga xam ne nit mën na caa jaaye ba def lu ñu aaye dañoo seetlu woon nag ci yooyu jamono jaay gu jëm dele lu mel nii mën caa am nga xam ne boo dee xool nañ jaayante ci jaahir moom arayut waaye boo ko jeexee ba ci biir mu indi lu aay it booba ñu gisoon nit ñi daa ko jubloo def de sax yoon waxu ca dara ci boo ko dee xool nañ ko jëflantee waaye nag mën naa andi lu aay loo xam ne dañ caa doole gis nit ña di def loolee di ko ca jublu mel ne xam nga leble bu am intérêt yoon da koy aaye li ñuy wax day nun bi day nun kenn ku ne amee sa moroom ak am lente yoon da koy aaye sarfun mu axar dañ ne woon wecc moom dañ koy xatal lool bu ñu dee wecc konte wuru sax xaalis loxo loxo la war a nekk te nag jaayante googu jëm dole mën nañ koo def ba noppi li ñuy wax sarfun mu axar dal cay feeñ lool jaayante bu jëm dole boo xam ne li ñuy wax salafun bi man faxa maanaam leble bu am intérêt da caa feeñ mën nga koo misaale nga jaay ko lu mel ne ab montor ci ab junni mu jëm bu weer wi deexee bu weer wi deexee nag da war a fay nga daal di koy jëndaat ci moom nag ci juróomi téeméer fay ko fi saasa ba boo ko dee seet day mel ne la nga ko jaayoon muy montor bi ñëwaat na ci sa loxo bu dee teew mu teew joxe nga juróomi téeméer di xaar nag bu weer wi deexee moom mu jox la junni boo ko dee fay ba dee juróomi téeméer bu weer wi xaaje itam bu weer wi xaaje nga jox ko juróomi téeméer di xaar nag weer wa dee moom mu jox la junni day mel ne rek ku leble juróomi téeméer bu la dee fay fay la junni gis nga boobu jaayante bu jëm dale ni mu andee lu aay te mooy lu ñuy wax salafun bi man faa doom bi day ni nag mooy lu mel ne nga jaay ko montar boobu ci ab junni mu war la fay bu weer wi deexee soo ko jëndaatee mu delloo la montar ba ak loo ko mën di jënd rek te di ko fay ci jëmmi dale bi mooy bu weer wi deexee la ko yàq mooy bu ngeen nee du ràkkati ko maanaam montar bi maa ngi la ko jaayee junni bu weer wi deexee wala bëti ko jëndaat ko ci yow nga delloo ma ko ci ab junni dale bi benn la bu weer wi deexee la ko yàq mooy ñu ne du ràkkati ko da nga may ameel junni ma ameel la junni ban àgg ci weer wi dee ma jox la junni nga jox ma junni loolu loolu am lente gi dox suñu diggante ñu ko wax day nun turéy nun loolu la ci yoon di bañ de bu fekkoon ne dañuy ràkkatikoo rek nga xam ne ak amee lente du ci am du aay misaalum nag sarfun mu axara mooy lu mel ne rek li ma la jaay mu jëm dele da nga may fay njëgu wurus bu ñu àggee ci dele ba mooy bëtigu nag jëndaat ko ci yow te lay fay njëgu xaalis nga xam ne njëgu njëkk gi ma la jaayee tem jëm dele wurus la ma cay fay xeetu wurus la ñu da ko jëndaate nag moom doon xaalis kooku moom mënta dagan ci genn wet ndax day mel ne rek danoo wecc konte wurus ak xaalis te nekkul loxoog loxo mu mel ne yi nga xam ne ak jaayante la waaye nag lu aay mën na caa làqu bu buñ gisee nit ñi di ko bari la def di ci jublu lu aay loolee ñu daal koy aaye nga xam ne boo ko defee te kenn yëgu ko te jubluwoo ci woon lu aay loolee sa diggante yàlla doo ci am bàkkaar waaye yoonu Maalik ci boppam mooy def lu mel ni nga xam ne buñ ko toppee mu andi lu aay bu gisee nit ñi di ko def lu bari rek di si jublu lu aay loole mu daal di koy aaye bu wér-wér ñeen ñi nag lu mel nii balaa mën a am da nga koy takk ci ñeenti tomb bi ci njëkk mooy ki njëkk a jaay la muy jaay jëm dele ñaareel ba moom ci bopp wëlbatiku jëndaat loolee mbaa ndawam dem jëndaat loolee ca kañ ko jaayoon ñetteel bi njëg dañ koy jëndaate bokk ak njëgu njëkk ga aw xeet xam ne daal lañ doon fay ci jaay gu njëkk ga moo xam wurus a xaalis la moo xam ñam la moo xam leneen la buñ koy jëndaat itam xeet njëggu mel noona lañ cay fay ñeenteel bi nag mooy moom mi nga xam ne moo jaayoon ba muy jëndaat it boppam lay jëndaatal dañ ko daan tomb nag ay tomb muy fukki tomb ak ñaar wax ne ñett moo ciy aay bu fekkee leneen xewu ca ba aayal ca leneen mbaa leneen xew ca ba taganal ca leneen fukki tomb ak ñaar li ko waral mooy da ngay wax ne boo jaayee am njaay mu jëm dele loolu bëti ko di ko jëndaat benn bi ngay jëndaat nga fay ci saasay saasa muy teew mi teew mbaa ngeen jëm ci délai bu njëkk bi rek délai bi benn la mbaa délai bu gën a jege booba mbaa délai bu gën a sori booba nga xam ne kon soo boolee teew mi teew ak ñett délai yee kon muy ñeenti tomb nga daal di wax ne nag bu mu ci mën doon rek njëg nga xam ne moom laay jëndaatee ci yow li ma la jaayoon mën naa doon njëggu tolloo googu képp képp mën naa doon njëggu ko yées mën naa doon njëggu gën a bari yi boo ko seetloo kon faaw muy fukki tomb ak ñaar ndax njëg yi moom mën naa yem ak googa mën na koo yées mën na koo ëpp muy ñett te waxtu wa mën naa doon teew mi teew mën naa doon yemoog délai bu njëkk ba mën naa doon gën koo jege mën naa doon gën koo sori su boobaa nag yum naaw def na tere fukki tomb yeeg ñaar ñëpp lañ ci aay yoo xam ne boo ko seetloo te njëkk a joxe lam joxe mooy gën a néew bu ñu àggee nag ci te ko mujj jox di ko jox jox ko lépp lam ko joxoon ñett yi na yomb naa takk moo bi ci jëkk mooy dañ ko jaayee loolee bu jëm dele sàngam ni ki weer ci misaal bu war laa fay junni bi weer yu deexee nga jëndaat ko fa saa su ki teew mi teew ci juróomi téeméer nga xam ne kon lañ ko jaayoon ñëwaat na ci say loxo mel ne dara mës ta génn say loxo joxe nga nag fi saa sa juróomi téeméer dina gën ku weer yu dee ñu joxal ak junni day mel ne kon pexe rek la mu ñu def tudde ko jaay te du dara lu may leble juróomi téeméer bi lay fay yow fay la junni loolu mooy bi aqal la naqdan ci topp mooy loo koy jëndaat du ma fay ci saasa waaye délai bi ma lay fayee day gën a jege ba mu war a fayee te li ma koy jëndaat itam du mat njëggoo nga nga xam ne moom laa la jaaye woon mel ni ba tey rek mu jëndaat montre bi mbaa rajo bi ci juróomi téeméer ci kaw fay la bu weer yu xaajee bàyyi na yow ba weer yi dee nga doromaa fay ab junni boo ko dee seet rek ba tey lebanaal juróomi téeméer ci misaal te xaar na boo may fay yow fay ma ab junni bu ci topp na yow mi nga xam ne yow laa jaay yaa moom njëriñ li mooy ma jaaye la ab bi loolu bëti ko jëndaati ko njëggu ëpp googa waaye délai bi itam day topp me ne li ma la jaay muy montar muy rajo ab junni laal ko jaaye nga war maa fay bu weeru deexee wolu bëtigu nag jëndaate ko ñaari junni war laa fay nag man su weeru deexee bañ teg ca fukki fan ak juróom kon bu weeru deexee yaay jëkk a joxe kon bu weeru deexee yaay jëkk a joxe ab junni ndax ma waaye yaa ngi séentu ñu teg ca fukki fan ak juróom ndax ma jox la ñaari junni boo ko seetloo ñettoom bi ay moom ka jëkk a joxe lam joxe moo gën a néew buy àggee ci dere ba nag jox ko lu ëpp loola te seetlu nga ne la ñu wax ne moom doon jaayee ko jëndante moom dellu woon na ca borom dëgg-dëgg amul ne kon weesuwul rek bëgg leblante xaalis mbaa wurus ba noppi nag tegte loo xam ne kay leb da ko cay dolli ne boo ko seetloo su fekkee ne délai yi benn la yu njëkk yi ëppantee du ca wàññi dara bu fekkoon ne itam dëgg yi nga ko jaay ak yi nga koy jëndaate ñoo yemoo képp képp kon wuuteeg délai itam du ca wàññi dara li may nag léeg-léeg bëgg wax ca kanam ne la moom léeg-léeg nga fekk lu waroon dagan mu indi ci aay mbaar waroon a aay te mu dindi aay ga waaye daal mën ngaa jëkk a takk ne moom su délai doonee benn mbaa njëg yi doon benn ak dagan lañ cey wax. su fekkee ne nag délai daa doonul benn mbaa njëg yi ëppante lay tax ak aay am ca mooy li ñu waxoon léegi ka jëkk joxe daal bu ñu àggee ci war koo fay dañ koy jox lu ëpp lam joxe woon loxo bi jëkk a joxe lam joxe mooy gën a néew lañ ko war a jox bu ñu àggee ca délai ba yett ya nga wees na boo ko seetloo noona la demee loxo ba jëkk a joxe lam joxe gën a néew ñu àggee ci délai ba lañ koy joxe ëpp waaye bu fekkoon ne délai ya wuute na mbaa njëg ya wuute na waaye loolu amu ca nga xam ne loxo ba jëkk a joxe itam ñu àggee ci war koo jox dañ ko jox rek ci misaal lu yemoog lam joxe woon dong yem ca rawante na nag loxo ba jëkk a joxe buñu àggee ci di ko jox dañ koy jox lu yées lam joxe woon kon dara ni ko ca loolu takk-takk la daa bëgg a wax ne su fekkee ne kay joxe njëg gën a néew xam nga yaay njëg la moom te tolloowuñu kay joxe nag njëg gën a néew bu fekkee du ko joxee ndoo benn yoon waaye rek am na ca loo xam ne mooy jiitu njëg gën a bari ñu daal di koy aaye kon njëg gën a néew moom léppam jiitu ga gën a bari ak lennam jiitu njëg gën a bari yépp ay aaye mel ne ma jaay la dara ci fukk mu jëm bu weer yu deexee dama ko jëndaat ci yow ci juróom ñett yoo xam ne damay joxe ñeenti ci saa sa mu teew ñeentee ba la ma ko joxe nag mu àgg ci weer yu dee nga xam ne weer yu deexee ba may jox fukk ya ma war laa jox ma itam ñeent kon boo ko dee seet njëg gën a néew mu juróom ñett yenn ñeent ya moo ko njëg gën a bari muy fukk ñoo bokk benn délai bu fekkoon ne nag baala jaay loolee ci fukk nga war maa fay bu weer yu deexee dama ko jëndaat ci yow ci juróom ñett yoo xam ne ñeent ya laay teewal ñeent ya ba la ma koo jox moom weer wa dee bañ teg ci ñaari ay bis kon juróom ñett yi nga xam ne mooy njëg yu gën a néew ñeent yi moom xam ne moom laay teewal day jiitu fukk yi ngi may jox bu weer wi deexee waaye ñeent yaa lay joxaat moom bala ma la ko joxaat weer wa dee bañ teg ca ñaari ay bis bu fekkee nag njëgug ñaareel ga mu ëpp njëg gu jëkk ga mel ni nga jaaye woon ko fukk mu jëm weer jëndaate ko nag fukk ak ñaar moom la cay aay mooy fukk yeeg ñaar muy njëg yi gën a bari lennam day jiitu fukk ya lennam nag ñu joxe ko ci gannaaw bañ joxee fukk ya man li ma la jaay maa ngi la ko jaayee fukk mu jëm weer ni ma misaale dina ko ci fukk ñaar waaye damay teewal juróom juróom ñaar ya des nag moom bala ma la koo jox weer yi dee ba nga jox ma fukk ñu tegaat ci ñaari ay bis ma door laa jox juróom ñaar yooyu mottali fukk yaa ñaar xam ne moom fukk ya ñaar njëg gën a bari juróom ya moo jiit fukk ya waaye juróom ñaar ya moom moo mujj fukk ya boobu it du baax daa waxoon ne ñaari délai bu ñu yemontee képp nga xam ne ki njëkk jaay ak ba mu jëndaatee délai dañ ko waroon fay ci ba mu jaayee ak délai bi war a fayee ci jëndaatu ñaareel gi benn bee dañ la woon bu demee noonu rek mu daal dagan mu ne nag balaa dagan ñu sart rakkati koo rakkati koo mooy kenn du amee sa morom dara lu may na nga ko ëppalee ci bor ne bi ma la jaayee lii ci junni mu jëm ci bi weer yu deexee daa ko jëndaat ci yow ci geneen njëg maa njëg gu tolloog googa ci kaw rek ma itam bu weer yu deexee am na kon délai bi benn bee kon bu ñu nee dañuy ràkkati koo baa ba mu ne pat rek bañ caa leeral kon mu daal di dagan nga xam ne kon buñ àggee ci yoor wa itam bu fekkee suñ ñaari bor yi ñoo yamante woon du ma la jox dara doo ma jox dara su fekkee ne itam li ma la ameel daa ëpp ma jox la rek ba mu ëppee te la fa def mu ràkkati kooku ne bu fekkee maa ngi la amee loon julli juróomi téeméer yoo nga amee loon ma julli doom te lépp jëm ci weer yu deexee weer yu deexee rek mu ràkkati ko benn julli ba man nag ma jox la juróomi téeméer in sharata nafiyal muqaasati nag mooy mu wax ne du nu ràkkati ko dañuy ameelante buñ àggee ci weer yu dee nga jox ma junni man ma jox la junni juróom waaye ràkkati ko du ci am loolu moom moo koy yàq ndax am lente googu ñu koy tuddi ak day na du day ni loolaa koy yàq sartu ràkkati kooga ak ñàkk koo sartu moom day feeñ lool ci jëflante bi moo tax mu ne am na tomb bu ñu aaye woon boo xam ne buñ ci sarti ràkkati koo kenn du ko aayeeti dañoo waxoon ne li ma la jaayoon mu jëm dele su ma ko dee jëndaat yi njëggu ëpp googa te toppal dele ba mu daal di aay mooy laa misaaloon ci jaay la montre bii nga war maa fay junni bi weer yu deexee mu jëndaat ko ci yow ci ñaar junni ci weer yu deexee bañ teg ca fukki fan ak juróom wala aay woon nañ ko mu ne loolu nag bu fekkoon ne dañ caa sàtt ràkkati ko du aayati bu ñu nee weer yu deexee doo ma jox junni weer yu deexee dañuy jàpp ne ameel naa la ñaar junni nga ameel ma benn junni ràkkati ko nan benn junni rek mu ñu tegee fukki fan juróom nag ma daal lay jox junni bi ci des mu ne kon mu daal di dagan nga seetlu kon ne al muqaasatu ràkkati ko googu ñu sàrt ko ca ak ñu bañ ko ca sàrt day feeñ lool ci dagan nga mbaa aay ga li nga ko jaayoon mu jëm dele te war laa fay wu wurus dañuy aaye ndawal bi di ko jëndaate ko xaalis ndax dañ leen tuumaal ci bëgg a wecc konte te du doon loxoog loxo jaay mu jëm dele ñu war laa fay njëg wurus nga bëgg a jëndaate xaalis mbaa safaan ba nga jaay mu jëm dele ñu war laa fay xaalis yow nga di ko jëndaat nag ci fay wurus tuuma jooju moo ci nekk mooy tuhumatu asarfin mu axar moo tax dañ koy aaye mutlaxan mu ne tuuma jooju sax bu fekkee dàqu na maanaam tuumay bëgg a wecc ku te du doon loxo loxo kon lañ aaye woon ci nga jaay dara mu jëm dele ñu war laa fay wurus nga di ko jëndaat ci kaw yow fay xaalis bu fekkee tuuma jooju amu ci rek mu daal di dagan nam cay bañ a amee nag mooy ki nga xam ne mooy njëkk a joxe day joxe loo xam ne daal ëpp na lool lañ ko war a jox ca kanam dañuy jàpp ne nag foofu tuumoon fi am ndax ki njëkk a joxe joxe lu bari lool di séentu ñu jox ko lu néew li muy joxe moom da koy joxe teewu teew tam bari dañ koy jox nag moom néew dañuy jàpp ne kon loolu bëgg a def wecc konte bu aay jooju tuuma dañ na mel ne nga jaay ko ab rajo ci benn dinaar mbaa ñaari dinaar dinaar boobu wurus la doon mu war laa fay bu weer yu deexee kon jaay nga loo xam ne wurus la ci war a fay boo ko jëndaatoon nag ci xaalis te nangoo fay nag juróom benn fukki dërëm te fekk na dinaar ci yooyu jamono moom fukki dërëm rek lay wecc ko kon gis nga ne rajo bi nga koy jaay benn dinaar mbaa ñaar rek nga koy jaayee mu tolloo ci xaalis fukk mbaa ñaar fukk kon boo ko dee jëndaat ci fay juróom benn fukki dërëm xam nga juróom benn fukki dërëm sore na ak fukki dërëm mbaa ñaar fukk juróom benn fukk sore na lool ak ñaar fukk mbaa fukk waaye foofu tuumay ak sarfu mu axar mënu fi am ndax yow mi njëkk a joxe jox juróom benn fukki dërëm ci saasa di séentu nag bi lay jox yow joxal lu tolloog ñaar fukki dërëm mbaa fukki dërëm loolu tuum mënu ci am moo tax su boobaa kon day dagan kon daal takkal ne bu ñu nee loo jaayoon ci dem dele ñu war la saa fay wurus doo ko doo ko mën a jëndaat ci njëg goo xam ne xaalis lay doon dañ koy aaye mooy nanguwoo caa fay ci xaalis loo xam ne ci saasa day ëpp lool dañ la war a jox ca kanam mel na misaal moom rek yaa ngi jaay li ngay jaay ñu war la cee fay benn dinaar mbaa ñaar su weer wi deexee kon dele la jëm waaye jamono benn dinaar mbaa ñaar dinaar day wecc ko rek dinaar bu ne fukki dërëm yow na nga nangoo joxe ci saasa ci jëndaat bi juróom benn fukk juróom benn fukk daa solenteeg fukk mbaa ñaar fukk loolu kon tuuma ji dañ na diiru ko aayeeti yooyu jamono ñoom seeni cikka daraa wuute am na jamono yoo xam ne am na sikka bu ñu tudde muhammadiya ak bu ñu tudde yasidiya ci seeni jamono muhammadiya moo gën a foor yasidiya ñu nangu nag nga jaayee cikka gee mu jëm dele nga wëlbatiku nag di ko jëndaate beneen cikka ga ca des mel ne nga jaay ko taabal ji ci fukk yoo xam ne day nekk yasidiya ci yooyu jamono nga wëlbatiku jëndaat nag taabal ji ci moom ba tey ci fukk yoo xam ne du nekk yasidiya day nekk muhammadiya mu jëm nag délai moo xam délai bi benn bee moo xam bu ko yéesee doon moo xam bu ko gën a sori du ñu nangu mukk lu mel noonu ndax bañ am leen te googu ñuy wax ak daynu bi day ni te lu mel noonu ràkkati ko mënu ci am ràkkati ko moom dañuy yemoo képp waaye bu ñu yemoo wut gis ci nam ràkkatikoo te yemawuñu muhammadiya mu gën a foor yasidiya dane nag wa mu ni bi sikkatay ni ilaa ajalin jum at bu fekkoon ne nag day teew mi teew moom nga xam ne da nga ko jaaye mu war laa fay cikka gee nga war ko nga jëndaat ko war koo fay cikka ga ca def waaye teew mi teew lay doon day daal di dagan boo jaayee nit dara njaay mu jëm dele mel ne weer yu dee la la war a fay loolu bëtiku nag jëndaat ko ci moom waaye nag njëg ga nga ko jëndaate moom marchandise la te xeetoowut ak njëg ga nga ko jaayee woon mel ne nga jaay ko benn armoire mu war laa fay bu weer yu dexee balub ndimo nga xam ne kon njëg gi mu lay fay moom balub ndimo la loolu bëtiku nag jëndaat armoire ba ci moom war koo fay ne yow boo koy fay ab gàtt nga xam ne njëggu njëkk li jaayee woon yow balub ndimo la njëg gi nga fay booy jëndaat nag moom ab gàtt la takk-takk bi daal mooy njëg gi nga xam ne moom nga koy jëndaate ca moom du bokk ak qualité njëg nga ko jaaye woon xam ne kon marchandise la te bokkut ak njëg nga ko jaaye woon bokkuñu benn qualité mu ne kon fukki tomb ak ñaar yi nga waxoon ñetti yaay cay dagan muy lu ñuy wax ñetti teewal saa yoo xam ne njëg day teew mën naa am marchandise bi nga ko jëndaate ci moom bu ñu ko xaymaa mu tolloog njëg nga ko jaaye woon muy benn mën naa am mu yées ko muy ñaar man naa am mu ëpp ko muy ñett kon daal bu ko see doon rek teew bi teew nga xam ne ngay fay fa saasa daal nay dagan waaye nag lu weesu ñett yooyu mu juróom-ñeenti tomb yi moom day daal di aay ndax bul fàtte ne fukki tomb ak ñaar la woon xëy na miin nga ko fu mel ni fii nag duñ fa mën a def lu ñuy wax ràkkatikoo ba naa ràkkatikoo ko mën na caa daganal dara wute googu am moo tax mënuñoo sart ak ràkkatikoo ndax ràkkatikoo moom dañ cee sart yaar yooyu bokk benn xeet bokk benn melo li mu ne nag boo koy jëndaatee njëg goo xam ne day nekk marchandise bu wuuteeg mooma alxar boo cee jublu rek lépp lu bokk te wuru sa xaalis di tax na ñu daganal ñetti anami teewal ga aaya nag juróom-ñeentee juróom-ñeentee moom am lente ga cay am muy ab dawlu bi day ni moo tax ñu koy aaye mu ne am na loo xam ne boo ko def seet dañ ko tabalee aayut waaye foofu yu mujj moom ak aay lay doon mooy dañ ne woon li nga ko jaay boo ko dee jëndaatee njëg ko yées te muy doon teew mu teew mbaa dere bu aggul ca booba moom dana araam ndax da ngay jiital lu néew di séntu ñu fay lu ko ëpp waaye li mu wax ni moom ayut mooy li nga ko jaayoon jëm dele da nga ko jëndaati njëggu yees googa te jëm ci jëmmi dele booba loolu ayutoon mbaa boog nga di ko jëndaati njëggu yees googa te dañuy weesu dele ba loolu tam ayutoon gannaaw bi ngeen juboo ci nii yow mi nga xam ne yaa jëndaat ba nangoo fay fa saas mu teew bañ a xaar jëmmi dele ba bañ a xaar dele bu gën a sori xanaa rek ci sa coobare nga ne naa fay mu teew lañ aay woon faw mu daal di dikk ndax ci misaal su ma la jaayoon montor bi ci ab julli mu jëm bu weer wi deexee loolu bëtiku jëlaat ko ci yow ci juróomi téeméer waaye nag ci kaw rek bu weer wi deexee nga xam délai bi benn la loolu aayu doon bu ñu waxee lii ba noppi nag mënul bëtiku ci sama coobare nangu laa fay ci saas juróomi téeméer loolu la wax ne nee nañu day daal di aay ndax kon day mel ne damaa leb rek juróomi téeméer di xaar weer wi dee nga jox ma ab julli kon leb na juróomi téeméer ñoo ci tegal juróom téeméer lay doon xam njëlbeen ga moom ayutoon man maa coobarewu rek nangoo teewal lu mel noonu nag daa am ñuy seet nañ ko tàmbalee wax ne ayut am ñuy seet nag na mujjee ni aay na moom nag daa bokk ci ñu wax ne aay na ndax seet na loola mujjee ba tey seetlu nga ne di ak sara li ab xadam moo aayoon li ma la jaayoon ci misaal ci fukk bu jëm bu weeru deexee man nga ko jëndaate ci yow fukk ñaar ci bu weeru deexee bay teg ca ayu bis mbaa ñaari ayu bis xam ne kon loolu bi ak sara li ab xada la li wax fii nag mooy bi aqal la li ab xada ma laa jaayoon loolu ci fukk mu jëm bu weer wi deexee nanga koo jëndaat ci yow ci lu yées fukk ni ki juróom ci kaw nag weer wi dee bañ teg ci ñaari ay bis loolu ayutoon waaye nag buñ juboo ci noonu loolu bëtiku nangu laa daal di jox fi saa sa juróom ya di xaar nag weer wi dee yow nga jox ma fukk ndax ci sama coobare laa teewale juróom waaye maa ngi séentu rek ñu àgg kon ci weer wi dee ba nga jox ma fukk moom nag daa ànd ci aaye gi rek wax ni daal na muy mujj moom moo ko ñu aaye woon ñooyam kon nañ ko aaye wala ab joxu almanon soo ko jaayee loo xam ne mislu la maanaam lu ñuy peese mbaa lu ñu natt mbaa lu ñu wàññi loolu moo tudd mislu yu mu jëm dele loolu bëri ko nag jëndaatoo jëm bi la nga ko jaayoon waaye li yem ak moom képp képp ci anam gu ne moom ngay jëndaat ci moom na nga jaayoon ko bërëgub ceeb mu jëm ci weer yu deexee xam nga ceeb moom lu ñuy peese la ngay di ko nag jëndaatoo jëm bërigo boobu waaye ngay jëndaat ci moom beneen bërigo boo xam ne moo bee nga ko jaayoon ñu yemoo lépp lépp lépp lépp mu ne loolu dañ ko yemaleeg nga doon jëndaat jëmbi bërigo ba nga ko jaayoon nga xam ne kon yet ca nga daa aaye ci fukki yaak ñaar nga xam ne ka njëkk a joxe la muy joxe buñ ca tegaatee ab dele rek jox ko lu ko ëpp mooy aay ñett yooyu ba tey mooy aay te mooy bi aqal la naqdan ak bi aqal la dunal ajal ak bi ak sara bi ab baxada mooy rek boo koy jëndaati njëggu yées ga nga jaaye woon te muy teew mu aay boo koy jëndaati njëggu yées googa ci dele bu yées booba itam mu aay boo koy jëndaate njëggu ëpp googa ci kaw ñu wees dele booba it mu aay anama cees nag moom duñu aay ci yooyu jamono miss yi bii nga xam ne da nga ko jëndaat ci moom tamit mag ba nga ko jaayoon la wax ne su fekkee ne la nga ko jaayoon moom dem naag moom jër boo xam ne jariñu xaj na ca mu door a ñëwaat nag ngay door a jëndaat ci moom lu mel ne moom dañuy aay yett yooyu nga weesu ba noppi dellu aayewaat yeneen ñaari anam mooy léegi dañuy aaye nga di ko jëndaat ci njëggu yées googa te délai bi doon benn xam nga lañ aaye woon léegi mooy njëggu yées googa ci teew mu teew mbaa délai bu yées boobu waaye bii moom mooy bi aqal la li ajalihi yaa ngi koy jëndaati njëggu yées googa waaye délai bi benn lay doon mbaa boog bi aqal la li ab xada yaa ngi koy jëndaati njëggu yées googa te dañuy toppale délai ba ndegam kooka ba nga ko ko jaayee jotoon naa génn ak moom door a ñëwaat diir boo xam dara ñu xaj na ca dañuy aay ñetti anam yooyu ba noppi aayewaat ñaari anam yii da koy waral nag nee nañu mooy day andi salafun jarra nafaan ndax mala jaayoon bërigoob ceeb kon nis wi la xam nga jaay la ko ñetti junni ñu diggante bu weer yu deexee nga may fay nga dem nag diir boo xam ne jariñ ca xaj na ca door a ñëwaat nag ma jëndaat ci yow bërigoob ceeb boo xam ne mook booba ñoo yemoo képp képp ci ñaari junni ba tey lu jëm rekk ci bu weer yu deexee ma it laa lay fay mbaa boog ma jëndaat ko ci yow ci ñaari junni ci kaw bu weer wa deexee bañ teg ca ñaari ay bis loolu ñu wax ne day mel ne dama laa lebal rek bërigo bi bërigo ceeb boobee léegi nag maa ngi la jaayoon ñetti junni jëndaate ci yow ñaari junni day mel ne ñaari junni ma jëndaate ci yow day tolloog ñaari ñetteel ma war a jox benn ba nag ma junni ñetteel ba moom nga ma jox muy njëriñ ndax li ma la lebal dañuy jàpp ne misli yi moom bu koo ko demee moom jëy boo xam ne jëriñu xaj na ci door a ñëwaat rek dañ koy jàppee ak lebal li weesu woon léegi mooy da nga koy jaayoon misli yu li ñuy peese mbaa lu ñu natt mbaa lu ñu wàññi wala bëti ku jëndaat ci moom lu mel ne loola ñu wax nag bu fekkoon ne la nga ko jaayoon bu misli yu day mu xawam mu xawam mooy loo xam ne kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko wàññi mel ne am xar wala oto wala aw nag ak yu bare bari yi nga xam kooku moom boo ko jaayoon bu jëm dele nga wala bëti ku jëndaat ci moom lu mu bokkal aw xeet dara du ca aay ndax dañu jàpp ne li ñu xayma moom daanaka gis ci yaar yemoo képp képp képp bañ a gënante dara dara dara yómbu ca ne boo ko jaayoon am xar mu jëm bu weer yu deexee loolu bëti ko jëndaat am xar itam du ko tee dagan am yëpp ay dagan amul dara luñ koy wax mu ne sax bu dee mu xawam nga jaay ko ko mu jëm dele nga bëti ko jëndaat ko ci moom waaye bi nga koy jëndaat ci moom daa fekk mu sotti ko lool melatuut na mel ba nga koy jaay mu ne ko it nu la ko jaayaate rek baax na amul dara luñ koy bañ day wax nag bu fekkoon ne la nga ko jaayoon mu jëm dele jëndaatoo lépp lépp lenn la nga jëndaat mu ne boobu moom am na juróomi anam yu ciy aay benn ba mooy ñi toppal délai ba ndegam délai ba day topp rek njëg goo ko doon di jëndaate mu aay muy ñett njëg gu tolloog moom njëg gu ko yées njëg gu ko ëpp nga dolli ca bi aqal la naqdan nga di ko jëndaate njëg gu yées googa te mu doon teew mu teew ci mujj nag mooy nga di ko jëndaate njëg gu yées googa ci délai bu yées booba juróomi anam yooyu rek moo ciy aay nee nañu la waral aay ga mooy buñ ko seetloo day am lu ñuy wax salafun jarra nafhan mbaa li ñuy wax bayhun wa salaf boobu léegi yaa ngi jàng bu yoxul aajaal jaay mu jëm dele nga bitiku jëndaat ko xam ne la anam yu bare bari yoo xam ne ñoo ci aay mu ne nag anam yu aay moom bu fekkee dara rawagu ca dañuy jàpp ne jaayante ku njëkk rek moo baax jaayum ñaareel ga baaxut li fekk nga xam ne jëm leen doon jaay rawagut mel ne mu jaay la rajo bii mu jëm bu yaru deexee ci ab junni nga bitiku jëndaat ko ci yow ci juróomi téeméer ci teew bi teew mbaa ab pièce booba ñaan délai bu yees booba loolu xam nga aaye nañ ko ñu ko yëgee te nga xam ne rajo bi bi ma ko jëndaatee mi ngi man delloo nga ma ko waaye mi ngi man dara sikku ca dañuy jàpp ne jaay naa rajo boobu rek mu jëm bi weer yu deexee ci ab junni ma daal lay jox rajo bi nga ameel ma ab junni loolu nag mooy bi nga xamee ne rajo bi dara sikku ci rawul deful dara bu fekkoon nag rajo ba dafa lakk ci misaal daa wax ne kon dañuy dindi yaari xeeti jaayante yëpp mel ne mos leen a jaayante dara dara dara ndegam moom rajo bi ma la jaayoon mu jëm weex ci ab junni jëndaat naa ko ci yow juróomi téeméer ci teewu teew waaye rek biñ ko bëggee dindi fekk na rajo bi lakk xam nga yow bii boo ko jaaye woon weer la jëmoon fayagoo ma woon te rajo bi ñëwaat na ci man baa téye ko mu door a lakk te mel ne kon ma am rajo rek mu lakk mosuma koo jaay kenn du ma la ameel dara doo ma ameel dara lu may nag bu fekkee joxoon naa juróomi téeméer ci teewu teew moom dama ma koy delloo waaye bu fekkee jotuma la woon a jox juróomi téeméer yi moom day mel ne rek mosuma jëflante dara man rek ma amul rajo rajo ba lakk